dañuy wax ni ki gañ Medina Fall gañ Thiès aujourd'hui ñu jëm ci élection présidentielle élection présidentielle yooyu man ma nekk ci candidat te su ma nekkee candidat ci élection présidentielle di laaj Sénégal Thiès laa ci gën a yaakaar ñi jàppale ma ci yaakaar ci waa Thiès ci seen taxawaay waaye ma yaakaar ci waa Medina Fall ma yaakaar ci coordination Médina Fall ci liggéey ci organisation mais surtout aussi ngeen waajal parrainage ba yéen Médina Fall ngeen indi lu ëpp ci parrainage bi xam naa ni mën ngeen ko te di ngeen ko def yaakaar laa musa am ci Médina Fall bi parti bi amagul woon doole ndax seeni taxawaay ak ñi fi nekk ñoom ngañ ñoom caamaas ñoom maam as rawatina tey jii nga xam ni ñu bëri ñu ngi ñëw ci parti bi ñëw bokk ak yéen liggéey bi kon rek waaye zone nord ngeen xam ni je veux construire la première force politique au Sénégal bu ñu bëggee nekk la première force politique au Sénégal dañuy nekk la première force politique à Thiès mais nekk la première force politique ici à Médina Fall kon liggéey boobu ngeen yaatal ko ngeen def ko ci ak fit rekk yéen bu leen kenn xoqatal li ngeen yor FDS les Guelwaar bu ngeen ko xamee kenn waru leen a mën a jaay lu fees seen bët kon yéene bi ñu am ci Thiès liggéey bi nga xamante ni commencé nañ ko liggéey boobu damay wax ni matul sama asaka sama yéene li ma bëgg a liggéeyal waa Thiès dañ nii dafa guñ fi at ñu ni taal nañu làmp dafa guñ fi at génne nañ cent dix millions jox ko xale yi pour ñu mën a jàng ay bourse dem ci école de formation yi ndax yaay yu bëri bëgg nañ seeni doom def formation mais amuñu ay moyens yu ñuy def formation cent dix millions six cent quarante trois ñu jox ko seen i doom ay doomu Cees pour ñu dem defi formation. yéene joo xamante ni li ñu jot a feeñal matul asaka suñu yéene ñu am yéene. cees liggéeyeen leen loo xamante ni doom musu leen koo liggéeyal ca doom dutu leen ko liggéeyalati ba mu ca waxantuwuma de dañu am yéene liggéeyal dëkk bi li ñu def ba ngeen koy magnifier di ko rafetlu matul asaka suñu yéene suñu yéene ci dëkk bi et kon ñu jàppante rek li ngeen wax dëgg la ci éclairage au niveau de Madina ak yeneen quartier yi nga xamante ni ci boppam ñoo nekk un peu à la périphérie bi may doog ñëw liggéey méthode la parce que su fekkee nee mën na maa xëy ma taalandoo làmp yépp ci Thiès ci benn at su ma ko waxee loolu mënul nekk mais boucler nañ première année bi programme bi mooy li ëppoon solo ci artère principale yi li ëppoon solo ci ville bi centre ville bi ak yenn quartier yi taal nañu làmp yi loolu mooy première phase bi première phase boobu moo jeex semaine ba la ñu génn actuellement ñi ngi ci deuxième phase bi lancer un nouveau marché boo xam ni moo ëpp doole marché bii ñu génn marché boobu li ñu ci tax a jóg rek mooy ñu ñëw ci quartier populaire yi ñu ñëw Médina Fall ak quartier yu mel ni Médina Fall ñu taal lamp yi ba mu mel ni centre ville liggéey boobu aussi ñi ngi ci wàllu ndox bi wax ngeen ko ñett matul ñetti fan rek j'ai reçu la direction général de l'ASD e, ñetti fan ñi wax ci problème mu quartier yi nga xamante ni dañu am jafe-jafe ndox quartier yi nga xamante ni amuñu ndox wala quartier yi nga xamante ni su ndox bi ñëwee aussi pression bi doyul ñu def ci réunion bu gudd ak SDE ba ñu lister quartier yépp ñu war a def ak ñoom liggéey ci loolu parce que jàpp nañ ni ci boppam ak Kër Momar bi Thiès dina am suffisamment de ndox parce qu'aujourd'hui, la couverture à Thiès au, se situe autour de 98%. Kon 2% yooyu war nañ ko mën a réussir liggéey boobu ñi ngi ci bu baax a baax te yaakaar nañ ne ndox moomu kon dina ñëw yeneen yi nga xamante ni yëpp nekk seeni jafe-jafe ak euh, li ngeen wax ne ndox mi nga xamante ni dafay taa fii man lundi dinaa wax suma service technique je vais la direction des services technique de la mairie ñu ñëw def la diagnostic ñu proposer ñu ci ay solutions pour que loolu ndox mu mën a deñ waaw lundi dinaa ko wax léegi góor a sama chef de cabinet incha allah suba suba donc bu fàttali ma ko léegi léegi service technique bu subaa dinañu fi ñëw ñu def diagnostic sur cette situation ndox moomu ñuy wax ñu indi ci ay solutions parce que lu amul solution amul. waaw lu amul solution amul volonté rek lay laaj su ñu amee volonté lépp mën na ne donc loolu incha allah lundi dinañu ci ñëwaat bu baax et kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant suñu yaay yi nga xamante ni ngoon bu gi ba léegi ñu ngi ñuy xaar di sant suñu wéyjur yi waaw di sàkku rek ñaan ndax euh, ay ndaw lañu waaye dañu am yéene ci Sénégal am yéene ci Thiès yéene ju kawe ca yaakaar lent yaakaar ci seeni ñaan yaakaar ci seeni jàppale yaakaar ci yaakaar ci seeni taxawaay ba suñu parti bii di FDS les Guelwaar ñu dund ba mu ëpp doole ci Sénégal ba ñu mën a gouverner Sénégal mën a dimbali askanu Sénégal mën a dimbali suñu yaay yi mën a dimbali xale yi mën a dimbali waa réew mi yëpp loolu mooy suñu yéene moo tax ñun ay gelawaar lañ moo tax ñun ñu tudde suñu bopp ay gelawaar